jëre ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaante ak mbégte comme ni ñu leen koy defalee saa su ne mbokk yi fan yi gis ngeen li nga xamante ni moom la àdduna bi di dund waaye balaa la boo xamante ni ci àdduna gi wërngal képp la dal ñu ñaan suñu borom mi nga xamante ni mooy saafara yàlla nañu ko suñu borom saafaraal jëleel ñu ko fi ba lépp loo xamante ni activité la woon ñu nekk ci yàlla suñu borom. kàttanal ñu ci dooleel ñu ci ñu def ko nuñ ko doon amee at bi nga xamante ni ci lañ jëm wala jàngoro bii nga xamante ni ci lañu dugg yàlla nañ ko suñu borom génnee jàpp ñu ci suturaal ba képp koo xamante ne rek sa activité dafa arrêté yàlla suñu borom dollawaat la ci nga am ci lu kawe sa njort ba ni ko amee woon mbokk yi ñu ngi fii ci Parcelles Assainies seet si kenn koo xamante ni mooy Cheikh Bamba Cheikh Bamba nag jiite kuréel boo xamante ni ancien gloire yi ci lañ bokk keroog bi ñu fiy ñëw di ko seet si dañ fee fekk ñoo xamante ni moom lañ doon waxtaanal ku ci mel ni Père Ibrahima mbay Père mbay Guèye ak ñeneen ñoo xamante ne fekkoon nañ leen fi mais moom nag jot ñoo waxtaan ak moom tey dañoo ñëw ngir waxtaan ak moom ci lépp loo xamante ne day yokk làmb ak kuréel bi mu jiite ak jàngoro bii di coronavirus ak mbër yi nga xamante ne bërki démb gis nañ acte bi ñu def ci làmb mu bokk ci làmb moo waral tey wasaare làmb seet si ko ngir ñu waxtaan ak moom kon Cheikh Bamba ñoo ngi lay nuyu. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatuhu Euh, ñi ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonant bi sallallahu alayhi wa sallam di sant suñu waajur di nuyu àdduna gi yëpp di nuyu waa senegal di jiital ci nuyu kilifa diine yi di ñaan suñu borom euh, Serigne Mountakha Mbacké euh, xalif général des Mourides yàlla na yàlla guddal fanam may ko wér di ko ñaanal Serigne Mbaye Sy Mansour di ko ñaanal xalif général yëpp ñu ngi leen koy ñaanal di ñaanal kilifa diine kilifa aado yi aussi yàlla defal leen jàmm di ñaan réew mi am jàmm àdduna bi am jàmm. di ñaan suñu borom mi nga xam ne mooy rabbul samawati wa fil ardi mi nga xam ne moom mooy dàq moom moo mën moo sañ li nga xam ni moo wasaare ci àdduna bi euh, di coronavirus bi nga xam ni jaaxal na ñëpp waaye moom jaaxalu ko yàlla nañu ko teggil wàcce yërmande ci barke weeru koor gi nga xam ni ci la ñu war a dugg si ci barke Seydina Mohamed man nag maa ngi tudd Cheikh Modou Bamba Mboup su ma label di Bamba production ma jiite benn kuréel bu tudd association FILS FILS boo ko déggee mooy formation insertion des lutteurs du Sénégal euh, xanaa ma bamtuwaat rek waxaat euh, pour euh, Cheikh Djily yow yi nga xam ni tey lañuy ñuy soog a gisee waaye Cheikh Bachir moom ci groupe bi la bokk boo déggee FILS mooy tey mbër yi nga xam ni tey jii nii parce que booy seet Sénégal li fi nekk ci mbër bari nañu waaye écurie bu ne boo amee 100 mën nañ ni dix wala cinq ñu ci bëre ci at bi gis ñëpp ay jàmbaar la ñu ñu ngi entraîné am doole mais mën nañu toog ay année du ñu bëre te ñu ci bëri tamit ku ne xam na ni euh, bëre sport la te sport loisir la du métier ñu ci bëri amuñu métier léegi nag tey Bamba mi nga xam ne moo jiite FILS ñëw ànd ceeg waa axlu làmb bëgg jàppale mbër yi ñu am formation am métier parce que tey métier boo ko amulee euh, tey mënoo mënoo mënoo mënoo mënoo dem. léegi nag looloo taxoon tey ñu ñëw ñu ñu ñëwoon Sénégal def ay at bitim réew doon fa def formation garde corps rapproché dundu làmb bi ñu ñëwee wut suñu licence promoteur jot nañ fi organiser ay combat mais après li ñu gën a ñor mooy jàppale xar yi xale yi bu ko defee ñoom ñëpp ku ci nekk euh, ñu jëm la jàppale nga am formation am métier ñu ngi ciy sant yàlla nag di ci gërëm euh, ñi may àndal euh, ku ci mel ni Mbaye Gueye la Tigre mi nga xam ne mooy sama vice président. di gërëm Ibrahima Mbaye entraîneur écurie mi nga xam ne tey ci la ci association bi la bokk mooy bi di ci gërëm tamit Ibrahima Ly bu Dalifor euh, Abouli di fa responsable bu mag di gërëm aussi Bëgg Fàllu bu Grand F Mbooloo di président comité d'organisation bi ak waa Axlu Làmb yëpp ñu ngi leen ciy gërëm parce que ñëpp ci association bi lañ bokk tey nag thème bi euh, li ko indi mooy euh, tey dañuy njëkk sant suñu borom. ndax affaire yi métti na waaye lépp rek dañ ciy del dañuy delloo dañ koy delloowaat suñu borom ku ne xam na ni crise am na ci àdduna bi temps yi corona bi xaw na jaxasee àdduna bi mais loolu noonu yëpp suñu borom rek dañuy ñaan mu teggi ko waaye man bu fekkee ni tey euh, promoteur acteur actuel euh, promoteur euh, sportif culturel la yu mel nii am tamit may taalibe gis yi am tey ji war naa ci mën a waslu ak waxtaan ci réew mi Euh, di gërëm bu baax la président de la république président Macky Sall ak gouvernement Sénégal yëpp ak sénégalais yi ak tamit opposition bi ndax gis nañu seen ay contribution boobu ba léegi tooguñu ñu ngi ñu ngi ku ci nekk rek yaa ngi xool solidarité sénégalaise nan lañ koy doxalee ba maanaam mbir mi ci kàttanu yàlla yàlla def ci saafara waaye nag suñu boroom ñu ngi ko ci sant euh, bu baax euh, di ci sant tamit waa axlu làmb mi nga xam ne ci lañ bokk di si sant waa axlu làmb bi nga xam ne ci lañ bokk. parce que ahlu parce que waa ahlu làmb franchement gis nañ ci tamit ñu def ci geste bu am solo euh, muy lay promoteur de lutte Pape Fall mi ko jiite gis nañ ni mu ko doxalee euh, gis nañ mu seeti Matar Ba franchement def fa contribution bu am solo moo xaritu xaritu promoteur am yi kooku tamit ñu ngi ko ciy gërëm bu baax a baax di ci gërëm tamit suñu njiit Matar Ba di ko ci massa coono euh, franchement gis nañ ci coono yam ciy daj. bu baax a baax barki Demba Ndiaye démb tamit ñu ngi ci ñu ngi gis waa ah mbër yu euh, les lutteurs en activité seeti le ministre Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xam ni moom it ñu ngi koy sant bu baax di ko masawu coono tey tamit def nañu geste bu noble boo xam ni franchement ñu ngi koy saluer man nag en tant que promoteur euh, ci turu association FILS tey jii nii nit ku ne euh, ñu boobu ba léegi sensibiliser li nga xam ni suñu borom jox nañu ko as tuut ñu ciy jënd ay eau de javel ak euh, ak ay détergent ak lu ne di ko di ko distribuer parce que ku ci nekk fa nga dëkk ak gox ba nga dëkk war nga leen mën a dimbali kooku ñu ngi koy def te yàlla tax franchement waaye tamit di lancer waat beneen message euh, di ko lancer président de la république parce que tey looloo yi lay wax ji parce que ku ne xam na ni mbër yi xale yi ñu ci bëri euh, bëre bi la ñu yaakaar ñu ngi entraîné boobu ba léegi nangu li yàlla dogal nag parce que bi affaire bi amee ñoom ñëpp ku ci nekk amoon nga combat boo doon préparé mais bi affaire bi ñëwee ñu xam ne mbiru suñu borom la te ku ne xam na ni buggul rassemblement ku ci nekk toog sa kër franchement ñoom ñëpp ñu gëm ci yàlla. kon nag tey man su ma nekkee benn porteur de voix nekk nag acteur de développement war naa ci mën a lancer message parce que xale yi tey boo déggee ñu ne ñi nga xam ne ay mbër yu ndaw lañu tey ñoom ñu ci bëri ci bëre bi lañ yaakaar. ñu ci bëri tamit euh, ci ci loolu loolu la ñuy dund mu xaw a métti ñuy lancer message tey ki nga xam ni président de la république yàlla def na moom la jox marché bi nga xam ni euh, moom mooy denre alimentaire yi parce que comme que yàlla def na ñoom ñi ngi entraîné am nañu kàttan macha allah ma bëggoon rek loolu en tant que euh, en tant que citoyen sénégalais euh, ñeewantal bu ma leen ñeewantal la tey jii décharge yooyu ñuy déchargé ci quatorze régions yi ma bëggoon tey di ci interpeller président de la république ak ki ma jox marché bi ak le ministre Mansour ñu xalaataat ci li nekk ci mbër Sénégal bëri na bu leen mënoon woo rek boole leen ci liggéey boobu noonu bu ko defee décharge boobu noonu ñoom ñu bokk ci au moins ku ci nekk di nga ci mën a am loo for pour mën a yóbbu sa kër message boobu noonu laa doon lancé man Cheikh Modou Bamba Mboup Euh, di interpeller président loolu noonu ñu jàppale ci xale yi rek ndax ñoom ñëpp ku ci nekk restez chez ñu ngi koy def ñu ngi toog mais ñoom ñëpp ñu ci bëri man leer na ma ni actuellement defuñu dara te am na ci loo xam ne nii euh, euh, jàppale leen wàññiwul dara kon nag maa ngi lancé message boobu le président de la république ak gouvernement am yëpp. xale mbëri bu ñu leen mënee dajale def benn sélection boo xam ne dinañ leen mën a yóbbu ci décharge yi ñuy décharger camion yi lu ñu am rek Euh, la ñu nar mën nañ ko dëgg la am na instant bii nii ñoo xam ne ñu ngi koy def mais bu leen ci mënee dolli rek loolu dina gën a taw féexe ci ñoom message boobu daal laa ne woon naa ko lancé en tant que promoteur de lutte di gërëm sénégalais yëpp nag ci seen taxawaay ak tamit di rafetlu aussi tamit macha allah euh, seen détermination seen gëm yàlla ak tamit lii président digle euh, tamit ñu xam ne ñu njëriñ la rek. bu yaboo nañ ci taxaw ci kàttanu yàlla di gërëm kilifa diine yi ndax ñaan mi ngi agsi ah, di ñaan yàlla suñu borom koor gi suñu borom yàlla na faat jàngoro bi mu dem yoonam ñëpp mën a reprendre seen activité waaye nañu delloowaat suñu xel ci moom rek na xam ni moo sañ moo mën ñaan yàlla waxirlu rek suñu borom maanaam dàkk lépp ci barke Seydina Mohamed. Bachir euh, kii euh, Djily bi loolu amee comme ni ma ko waxee rek franchement bi bi mu amee euh, ci li ñu yàlla kàttanal parce que affaire bi dafa nekk loo xam ni boo koy def te yàlla tax mën nga ko def tey mu nekk lu discret. parce que tey euh, ñun ku ci ne ci ñun association bi ci gox bi nga dëkk li la yàlla eh, mas may mas parce que boo déggee sensibilisation tey mën na bañ a nekk sax xaalis mën na bañ sensibilisation boo ko déggee mën na bañ a nekk sax xaalis mais mu nekk loo xam ne tey da ngay sensibiliser les jeunes man Cheikh Bamba boobu ba léegi yàlla def na corona bi mooy mooy mooy moo moo moo nekk samay samay thème moo nekk samay thème maa ngi jéem a xool toujours na lay sensibiliser tous les jeunes waxtaan ak ñoom delloowaat leen ci yàlla ak tamit ci feebar bi ñu jéem a ñu jéem a moytu ndax feebar bi ñaar rek la mooy di moytu ak tamit di ñaan loolu maa ngi koy def di ñu yàlla jox as néew tamit li nga xam ne tey da day day da koy éviter ci kàttanu yàlla muy saabu yeeg détergent yi maanaam ñu ngi koy jënd maanaam di ko séddale yenn saa gox yi yi nga xam ne yittewoo nañ ko kooku ñu ngi koy def te tey bu dinañ ko def waaye nag xëy na yéene lu am solo la suñu yéene ñu ngi koy def parce que boo gisee tey message bi ñu lancé ko bëgg tey euh, xale yi jàpp ci dara tey euh, lool lool lool rek la parce que sensibiliser leen xam ne lii mbiru suñu borom la waaye tamit xalaat leen encore parce que tey euh, ku ci nekk ci ñun mën nay yëngu ci dara bien vrai que ñu ngi ci crise dina xaw a métti mais xëy na ñoom tamit dañ koy yëg parce que ku ci toog sa kër di entraîner ngoon si nga daan. Euh, am dara sax pour jënd loo lekk moment bi amoo ko day métti moo tax décharge boobu buñ leen buñ leen ci jàppalee ñuy dem di wàccee ci ceeb yi ak dëwlin yi macha allah di leen ci jox dara parce que loolu tamit dina leen xaw a dimbali mais ñun suñu côté ñu ngi organiser wu man ci laa dëkk euh, franchement à chaque fois lu ma am rek. dama ci jënd ay maraar waaye détergent yéem ma xool dëkkandoo yi ak tamit ñi nga xam ne war naa leen mën a jàppale dem sensibiliser na waxtaan ak ñoom ne leen nii ak ni daal boo leen ko defee yaakaar naa ne yàlla dina leen ci jàppale kooku moom ñi ngi ciy organiser wu te incha allah tamit ñi nga xalaat tamit ci kàttanu yàlla ñi nga am yeneen yoo xam ne ñi ngi ci ñoom association bi xam naa ne du yàgg dara yàlla bu ñu mayee xéewal am na nañu yéene tamit lépp lu ñu mën def pour gën a sensibiliser sénégalais yi gën a tem gën leen a jàppale dinañ ko def waa mais franchement euh, ñu ngi ciy def lu ñu. dafa dafa dafa amoon ay journée yoo xamante ne yéen ko doon organiser ci association bi làmb yoo xamante ne yéen ko doon waaj di ko def ci àll beeg yu demee noonu euh, programme boobu ak njàngoro bi nii nu nu muy demee nu muy tëdde waaw waaw programme yi jiit yi euh, métti na trop mais nag sant yàlla ndax suñu borom moom bu dogalee moom dañuy gëm parce que am na lu ñu tàmbali woon. parce que defoon nañu lancement bi ba waroon def une tournée nationale ànd ceeg waa ministère de la formation professionnelle ànd ceeg tamit waa ministère sport ak ministère de la jeunesse parce que plane planifié woon nañ ba pare jot nañ fi dem Kaolack ci mois de février bi mars bi ñu ngi woon Fatick ñu ngi woon Soum noonu la ñu waroon avril bi ñu ngi waroon def Tëngëj mai bi Euh, weeru koor gi la woon mais dañ le 18 avril bi normalement Rufisque lañ ko doon def événement boo xam ne forum ak gala de lutte la woon mois de mai bi ñu waxoon ni comme que koor la dañu def forum rek parce que forum bi boo ko déggee mooy waxtaan ak mbër yi parce que actuellement dañu def ay convention ak waa direction de l'emploi waa ANAMU ak waa waa waa ONFP office national de la formation professionnelle ak waa CMU di liggéey ak ñoom liggéey bu am solo parce que fi ñu toll nii ñoom dañoo pare pour ànd ak ñun former xale yi ci formation yi ñu bëgg yëpp muy garde corps rapproché muy euh, sérigraphie muy liggéey yëpp dañ leen ci war a former convention yi signé nañ ko ba pare amoon lu bëri nag yoo xam ne dépensé woon nañ ko pour ay événement yi ñëw waaye yàlla moom bu dogalee rek maanaam jàmm bi da koy gëm xaw na metti ci acteurs culturels yi ak sportifs yi waaye tamit ñu ñaan suñu borom rek mu teggi fi lii bu ko defee ñu mën a àggale suñu liggéey waaye pour le moment nañu nañu moytu rek parce que comme que jàngoro la te moom bakkan moom moo gën a for lépp waaye ñu moytu Euh, euh, ba pare euh, tamit ñu ànd ceeg discipline parce que tey bu ñu nee restez chez vous ku ñu ko wax sa intérêt la tey waruñu xaar sax policiers yi ñëw dañu dugal suñu kër yi man yaakaar naa ne ñoom waruñu ñu gën a bëgg suñu jàmm waaw tey nit ki mooy bëgg jàmmam xaalis neex na trop mais wér moo ko gën a neex jàmm moo ko gën a neex toogal sa kër julli ñaan sa borom dina metti nag kooku tamit ñi ciy lancer message président mm. parce que tey toog sa kër dafa xaw a metti ci borom njaboot. dafa xaw a métti trop tey koo xam ne tey jii nii parce que tey muy xale ak mag yëpp responsable nga. tey ñëpp tey Bachir muy yow muy man muy keneen ku ci nekk am na lu la war. léegi loolu tamit ñu ngi ciy lancé message le président de la république mi nga xam ni tey moo jiite réew mi ak tous les acteurs yi nga xam ne privé lañu ak tey acteur de développement. côté culture bi ak sport bi ñu jàppale gars yi. xam nga lu ñu leen mën a jàppale nañ leen jàppale parce que sport instant bi rassemblement la laaj te dafa taxaw di communicateur traditionnel yi di presse bi xam nga en ligne bi tey ñoom ñëpp di promoteurs yi tey ci lii lañ mën a am dara mais tey bu liy taxawee tamit ñoom da leen di jàpp waaw parce que mais tamit loolu tam ñi ci lancé message président de la république côté côté acteur culturel sportif yi ak képp kuy dund ak lu làmb ñu ngi koy ñaan ak sport bi tamit buñ leen mënee jàppale ci dara ñu jàppale leen ci ñaan yàlla suñu borom maanaam liy teggeeku ci kàttanu yàlla waaye na nit ñu toog seen kër ngir seen wér gu yaram waaye tamit état bi yàlla na leen yàlla wërsëgalee doole goo xam ni ñi toog seen kër tamit danañ ci mën a jàppandiku parce que toog sa kër tamit te amoo loo dundee day xaw a metti waaye nag sant yàlla rek ñaan yàlla mi nga xam ne moo yor sutura defal ñu ko ci barke Seydina Mohamed ndax moom bu ko neexee kenn du xiif kenn du mar kon nag nañ ko delloo nañu delloo suñu bopp suñu borom rek di saat ko lépp amaana ñu ko defee lépp dina rafet waaye nag sénégalais yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm. ndax ak yu noble yi sénégalais dafa solidaire boobu ba léegi gis nañ ni franchement ñi ngi ciy taxaw ñi ngi ciy jàpp waaye nag kon yàlla na yàlla jàppal ni lépp ci barke Seydina Mohamed. ku xam koo xam Cheikh Bamba xam ne dem nga Italie def nga fa ay diir euh, am nga fa ay xarit yoo xamante ne ña nga fa feebar bi daanaka liñ fi dégg liñ fi liñ fa dégg xanaa euh, jégg na dayo loolu euh, ban message nga leen lancé ak ak ak sa ñi nga xamante ni xam xam nga leen ñu ne fa ba xam yaa ngi déggante ñoom. diaspora bi laa bëggoon ñëw lu itali rek mais danga naan diaspora bi àdduna bi yëpp Italie man def naa fa ay at samay frère samay tànt euh, samay lépp a ngi fa ku ne xam na ni metti na. ki ma doon woo léegi téléphone nii euh, moom fa la nekk mais dafa ñëw fii ci ginnaawam dogal di dal ko jëkkëram ak ay doomam ñëpp a ngi fa. métti na trop subaat ngoon ak guddi ñu ngi dégganteeg ñoom ndax tey Sénégal euh, yàlla na fi yam am na sax ñaari kaawu dese mais tey chaque jour États-Unis Italie France Espagne ay 600 700 800 nga fay dégg ku ne xam na ni métti na ñoom nelawatuñu seen xel dalatul lekkatuñu naanatuñu waaye di ñaan suñu borom ndax ji lii lépp yàlla la. maanaam bu nammee ci ay seconde mu jeex du yàgg ñi ngi def ay vaccin ñi ngi def lu ne mais moom nañ ko nañ koy tuub di ko jégalu rek maanaam ñaan ko mu arrêté ko fi ñu toll bu ko neexoon ndaxu taw ni muy wàccee mu jékki-jékki taw mu ko bu ko neexoon lii balaay 24 heures mu mu mu jeex fépp maanaam ñu ñaan ko rek suñu borom maanaam di ko tuub nag di ko jégalu ba pare ñaan suñu borom mu arrêté ko ndax fi ñu toll nii ñëpp jaaxle nañu. ginnaaw digle euh, euh, kilifa aada yi ak kilifa diine yi mooy nañu toog di ñaan moom lu ci des moom moo ko mën a gérer xanaa ñaan ko rek maanaam mu arrêté jàngoro bi ñëpp mën a delluwaat seen ay activité métti na Europe trop metti na tamit Amérique métti na bitim réew centre Afrique fépp waaye ñaan suñu borom mu mu mu yamale ko fi war fee ñen ñëpp mën a dellu seen ay activité ci barke Seydina Mohamed ban message ngay lancé mbëri ndax euh, président tere na rassemblement bi yëpp mais ba tey am na ci ñoo xamante ne ñu ngi dem ci géej gi di entraîner police yi di leen fa fekk di dóor ay lacrymogène ñuy daw di dem ci dini ba démb rek euh, récemment terrain bi nga xamante ne mooy terrain Cambérène am na ci ay mbër yu doon entraîner euh, ba alkaati yi dàq leen ñuy daw ak yooyu est-ce que doo leen lancer benn message boo xamante ne ñu xam ne lii jàngoro la mais jàngoro bu sérieux la. ndax balaa balaa ngaa mën a def benn activité da ànd ak wér ndax ñoom mbër yi fi mu toll nii ñu ngi jàpp ni bu jàngoro bi jógee rek saison bi day ubbiwaat dañuy nekkaat ci activité mais loolu yëpp day fekk nga tal ko ànd ak wér. wax sànq euh, ñoom it nañu jàppale nañu jàppale parce que loo xam ne rassemblement lay bañ nit daf ko war a éviter dëgg la ci deret bi la xam nga tey tàmm nañu entraîner et tout mais pour le moment démb rek Modou Lo mi ngi koy wax. mi ngi leen koy lancé maa ngi déglu Modou Lo Tapha Tine Reug Reug ñoom koy lancé nañu toog seen ay kër xam nga metti na mais nañu toog seen kër xam nga lii du loo xam ni maanaam nit war na la koo tere yaa war a am sa grandeur ak sa discipline ak tamit sa savoir vivre savoir faire nga toog xam ni am na ci loo xam ni tey man su ma toogee amaana bu ma ñëpp ba bu ma toogee sama njariñ lay doon waaw ñoom dañu war a ñoom ñëpp ku ci nekk toog sa kër loolu laa leen di lancé metti na mais ñu muñ fi ñu toll nii moom ci ñëpp la metti mais maanaam courage ak muñ rek xam nga ñëpp la seen activité taxaw mais bu ñu xëccoog policiers yi bu ñu xaar sax policiers di leen sànni ay lacrymogène ndax am na loo xam ni rafetul ci image nañu toog ñaan nañ yàlla suñu borom léegi li arrêté waaye tamit di lancé message xam nga kilifa réew mi yëpp tamit nañ leen yërëm tey jii nii boole leen ci affaire yi parce que ñoom ñëpp fi ñu toll nii amaana xam naa ne sonn nañu man maa koy dund. promoteur laa mais li may wooy ci doomu mbër man xam naa ne mu mel tey metti na ñeewantal leen moo tax sama lancé message bii nii nañ leen boole ci liggéey bi jéem leen a boole ci camion yi dem ci àll yi. bu ko defee région bu ñëwee bu ci ne mbër fa ne ñu woo leen bu dee tey ay armée bi militaire ñoo koy ñoo koy diriger wala ñeneen ñu woo leen am nañu kàttan bi bu ko defee bu ñu déchargé tey budget boobu noonu tey jii nii. ku ci mën a volontaire nga volontaire mais am na ñoo xam ne tey amaana tey seen soxla nañ ko ku ci nekk la nga mën a am par journée ñu jox la ko bu ko defee nga am ko message boobu daal ñu ngi leen koy lancé te ñu toog seen kër yi ñoom it xam nga ñu ñu yërëm ci euh, seen ay waajur yërëm ci euh, gémi yi nga xam ne sax dañuy xëccoon teg ñoom dañu jar a yërëm parce que koo xam ne vingt heures ba six heures du matin da ngay xoole ñooñu man benn côté benn instant tam dama naan nañ leen ñeewantal noppal leen amaana bu ñu ko defee une semaine yoo xam ne kenn demul fenn kenn rassemblé wul kenn kenn demul kenn dikkul respecté couvre-feu bi incha allahu rabi léegi nga gis suñu borom wàcc ci tawféex ci kàttanu yàlla mais il faut que toog kooku daal laa leen di lancé di ñaan yàlla daal suñu borom yàlla na yàlla wàccee naataange ak yërmande. jërëjëf Cheikh Ba jaajëf Cheikh Jili di gërëm tamit waa Wasaare Lamb euh, di leen gërëm bu baax parce que man man yéenay suma presse. waaw man sama waxu démb mooy suma waxu tey di leen ñaanal aussi Youssou su fi mu toll. maanaam bu ubbi teleem ndax àdduna lépp loo gis courage la ak muñ la te gis naa ne ay xale ngeen mais da ngeen am détermination tey koo fi gis rek am na démb tey muy El Hadj Ndiaye muy Youssou Ndour muy Bougane Gueye ñoom ñëpp Bougane Gueye ci lii la commencé Youssou Ndour ci lii la commencé di way di way di way yàlla dimbali ko ak ndimbalam macha allah ba mu nekk ministre ba mën a ubbi teleem te yéen it yàlla na leen yàlla dimbali. bala muy yàgg dara ngeen am seen tele am seen lépp. loolee loo gis rek yar gi ak teggin gi na ngeen ko continuer rek da ci des yëpp di ñaan suñu borom maanaam yàlla yokku leen waaw man moom yéenay samay nit franchement ndax gis naa liggéey bu rafet bi ngeen liggéey waaye léppay baax incha allahu rabi. jërëjëf jaajëf mon frère jaajëf jaajëf. jërëjëf Cheikh Bamba kontaan nañ bu baax a baax a baax ci dalal bi eh, gis nañ ñaan yi yàlla suñu borom dolli ñaax la rek boo xamante ne mu ñu koy ñaaxaat.